waa ala alihi wa asxaabihi wa sallama tasliman kasiira ayyuham shaahidoon alkiraam nuxayyikum jamiican bi taxiyatin islaamiyya qaa'ilan lakum assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu mbokk yi tedd xam ne yéen nga yéen a ñëw seetaan ci Seneinfo ngi leen di nuyu bu baax baax siyaare ñu ne dañ ñëwal suñu tafsirul quran bi tey nag ñu ngi commencé ci wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal janna bi nga xamee ne aadama yàlla xamal na ko tur ya wax malaaka yi na leen sujjóot leen malaaka yépp sujjóotal aadama sujjóotu màggal ba des ba mu des nag iblis ni xamal aadama na ko nag kii nag sa noon la yow ak sa njaboot nañ ko bàyyi xel ba léegi nooneel boo ger boo mooy dox tey nag aadama mu ngi aljana moom ak soxna awa léegi yàlla ne dëkkee leen ajana waxul naa ñu wax ñun yàlla yaa aadamu yow aadam uskun dëkkee xel ante yow sooju ko ak sa soxna mi xawaa dëkkee leen aljannata ajana wa kulaa lekk leen min haa ci ñamu ajana raxadan ci ak yaatu yaatu may ak naataange lekk leen te bu leen jaaxle bu leen ci ragal ak jeex lekk leen te bu leen ci ragal ak yeddaange lekk leen te bu leen ci ragal dépense bokk dafay wàññeeku ndax ñami aljana nekkul loo ma ne danga ko doomu aadama daf ko mën a kon lekk leen xaytu chutuma fu mu leen soobee nag fu leen neex ak lu leen neex ak lu ngeen bëgg rek mën ngeen lekk waana nag wala taqraba haasihi shajara wala taqraba bu leen jege mukk haasihi shajara te gi garab garab googu borom xam-xam yi nag coonañ ñu ne mooy xinta ñuy waxaat benn xeet en am na garab bu nekk ci ajana yàlla tere leen ko tere gum leen ko tere ci la créé ci la créé àddina bi coono bu bari bi ñëw ci la ñàkk gi ñëw ci la feebar ñëw <clears throat> ci la dee ñëw ci la lépp ñëw ndax suñu borom tabaraka wa taala bu fekkoon waxoo doon aadama wala taqrabaha si shajara du ko doon du mos a jege garab gi du ko mos a laal waaye itam konoon pour mu créer àddina nu ngi koy créer dafa xaw a moom dara jëfewut ci moom waaye foofu nag ci la mën a dëgg pour créer àddina waaw waaye ba ko waxatoon loolu aadama alayhi salaatu wasalaam du laal garab gi te xam nga doomu aadama loo ko tere rek loo ko tere loolu lay bañ a kii moytul lii moytul laal lii bu ko laal nangam nangam dana waaye lii mooy lu tax moo ko xaye yan conséquence moo ci nekk dégg nga dafa jëmi essai ba far laal ko moo tax mu ne wala taqraba bu leen jege haasihi shajara tegee garab su ngeen ko jegee ba lekk si ci fatakoo naa da ngeen mujj nekk mën a doole mel bokk ci tooñkat bokk ci ñi nga xam ne da ngeen mooy yàlla ndax yàlla tere na leen ngeen lekk ñu ne iblis la moo jaar ci malaayika na ko dama bëgg nga yóbbu mu ci aljana ndax adama daal triangle am daal dëgg-dëgg man na ma sonne si jaamu yàlla adama triangle yu ko yàlla defal ëpp na dama bëgg nga yóbbu mu jël benn malaayika dama bëgg nga yóbbu ma ci aljana ma jëm faa génne adama bi mu ñëwee jaar ci aadama wax wax wax aadama lànk mu wax wax wax aadama lànk ne sama borom def ma ko aaye mu jaaree ko ci soxna sa awa naka na seexa garab gi yàlla aaye leen ma sajaratul xuldi su ngeen fu lekkee ci garab gi bu ngeen seex dootu leen génn mukk loolu moo tax seen borom na bu leen ko jege ndax bu ngeen ci lekk rek bis mën naa ñëw mu génne la waaye bu ngeen ci xasee ba lekk jeex na xawaa topp aadama xawaa topp aadama ba aadama topp ko fay fekk si ko bi aadama lekkee bu sam jàll dañ ko téye moo waral góor ñu ne muy am xooru baat waaw xawaa mi nga xam ne moom lu sam jàll na yàlla na ko dinaa la nattu yow weer wu nekk dinaa la nàccal moo tax weeru jot jigéen da gis reegal jigéen bu ndaw weer bu jot bu fekkee mu ci norm yu yu yu yoo xam yu norme la saa su weer ju tere dana gis dana gis reegal waaw loolu mu ko loolu sabab bu ma nekkoon foofu léegi nag yàlla wax malaaka mi nga xam ne moo yóbboon iblis naka yow dinaa la toroxal dinaa la génne ci kooru malaaka yi waaw dinaa la génne ci kooru malaayka yi dagg ay laafam dagg ay tànkam soppi ko mu nekk jaan bu mu nekkee jaan mu ne ko nag yaa doomi aadama yi seen diggante noonu moo ci dox ku la gis ñaare dana la rey waaye yootu ñaare ko mat bu defu ndànk dana dee ma tax jaan ma doomu aadama ni ma sa juboo mhm. fa takkoon naa min zaalimiin ngeen bokk si ñu nga xam dañaa mooy mooy seen boroom fa azallahuma daal di leen tarkaslo as seytaanu seytaan mooy iblis waaw fi xam ba yóbbu malaayka mi malaayka mi da topp rek daa wax iblis ma toxand ci lekk leen nangam nangam ba gaay fekk si leen te lañ bëggoon azaluhuma seytaan seytaan moo leen tarxasloo xam xaar ci ajana ja génn da ngeen ñu naan xal add mu seytaan moo leen waxoon xal addulukuma ala shajaratil xuld wa mulkin laa yablaa kaa leen ma tetal leen ci garab yi ajana xam ne ci garab goo xam ne mooy shajaratul xuld bi ngeen fi lekkee rek bi ngeen ko lekkee jax dootu ci génn te doomu aadama naka jëkk dafa bëgg nguur dafa bëgg palit dafa bëgg tiraanga moo tax mu def fekk sa su nekk garab googu mooy garabu taxab dégg mooy garabu coono gi mooy garab boo xam ne ndeysaan mu andi doomu aadama yëpp ñu nekk coono yu métti yëpp ñu nekk ci kaw suuf ñaan ñi daan rey ñenn ñi nga liggéey ñi xam ñi duñ xam su nekk fa yàlla génnee leen ci àjjana mais maa ca xanam ba nga xam ne kaara nekk nañ fii ci moom xanam bañ nekk xoon ci wàllu xéwal da xéwlu ak xel mu dal yàlla génne leen ci waxul naa ñoo leen ihbitu yéen wàcc leen aadama yow wax seen njaboot wàcc leen ci biir ajana ngeen jee ko fi dem ci àddina boo xam ne dañ ko tabax bu ngeen demee ci àddina ba baadukum lenn seen jaboot xadduwun dañu nekk noonu di baax di ñeexal ñenn ñi su ngeen demee ak noonu dana dox seen diggante ngeen da xeex da rayante ñu ëpp doole ñeneen ñi da leen tooñ da leen ba ilaa yoomi diini bu yemal xaama ne bu ngeen ñëwee it tooñ yooyu dañ koy réglé wala kum ñeexal ne leen sa saxuwaay fil ardi ci àddina ba foofu ngeen mën a dëkkee ji da ko boo xam ne bu ngeen góorgóorloo gëm yàlla gëm yonent bi da jaamu yàlla nangoo lëggéey da ngeen fa am teraanga bu rëy su ngeen dajee man ma defal leen teraanga boo xam ne dugg ajana te bu ngeen fa bu ngeen fa duggatut leen fa génn mustaqar wa mataaxun ak bànneex boo xam ne dangeen ngeen ci bànneexu ci àddina ci xeeti ñam ya xeeti garab yi ngeen da xewloo ndox maa fa xeet bu nekk ci lu doomu aadama da bànneexoo def naa ko ci xët na ilaa xiinin jëm ba aw waxtu nag ab heure seen waxtu dee ba jotee rek ngeen jiyee ko fi nag fa talaqaa dajee na aadamu aadamu min rabbi tukkee ci borom kalimaatin ay baat yoo xam ne yàlla moo koy yënk bal ilham bokk na waxyu ilham nit yàlla ñu koy def nit ku mag boobu aadama nekk gud yonant mu tëdd rek ñu jox ko baajo na ko yii soo ko waxee yàlla na la jéggal li gën a siiw nag ci baajo mooy rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin mu deltu nag gannaaw daa nga jéggalu boromam yàlla daa di ko jéggal waaw ndax yàlla moom tooñaa ngi lum rëy rëy rëy rëy tout cas sa diggante ak sa borom la bul na yàlla du ko jéggale yàlla tuñaan ko yëpp mën na ko jéggale ba ci bokkaale bi ñu wax naan yàlla du ko jéggale sax dafa fekk borom dafa bokkaale ba dee waaye bokkaale ba mu yàgg nga deltu gannaaw bàyyi bokkaale ba tuub dégg nga bàyyi bokkaale ba carrément yàlla dana la ko jéggal waaw te ku dee ci bokkaale la yàlla du jéggalati fataaba nangu tuub moom yàlla alayhi ci aadama innahu moom yàlla huwa moom nangu xaa kon tuub la arraxiim yàlla moom ku bari yërmande la xul naa ñu wax aadama ak njabootam ihbitu wàcc leen bàppeeku leen min ha tukki ci ajana jamian mboolem seen ihbit habata mooy jow ci bu kawe da wàcc xana boo defu ndànk sax mën ngaa daanu mooy habata imma yatiyannakum su fekkee ñëwoon leen mi ñu tukkee ci man yàlla hudan njub su ngay demee ci àddina ba téere ñëwal leen wala ab yónnent ñëwal leen da waxtu ne yàlla moo ko yónni faman faman tabixa képp ko xadafa topp hudaaya suma njub mooy mu gëm ga gëm téere booba gëm yónnent bi jëfee ay ndigalam bàyyi ay tereem falaa xawfun deeta ragal alayhim da nekk seen kaw ci àddina bi duñ gis lu leen tiital wala hum den ñoom kër yomal qiyaam yaxsanoona ñuy tiit duñu ragal fii ci àddina jamono bu nañu rek tiit ñoom ñu ngi ànd ak seen sago te bu kër yomal qiyaama it duñ bokk si ñooy jàq de tiit bay lox walla zina gaa yi nga xam ne kafaro wéet nañ yàlla weddi yonent bi weddi alquraan wa kasaboo ñu daal di fenlo bi ayaat naa suñu alquraan yaa na ulaayika ñu ñu la gaay asxaabu naar ñoom ñooy waa safara hum ñoom xaalidoona way sax lañ ba faw fiiha ca safara dañ fay sax ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla weddi yonent yi weddi téere yi ñooñu nag ñoo dëkka di ëllëg safara biñ ci continué ba faw biñ deexee safara mooy seen dëkk waaye yàlla ñu ci yàlla musal yaa bani israila eh, yéen doomi israil isra mooy xamdu ila mooy yàlla yen doomi jaamu yàlla bi ñu ne mooy yàqoob yéen doomi yàqoob bi uskuru tudd leen fàttaleeku leen nicmati suma xéwal allati xéwal ki nga xam ne anxamtu xéwal naa ko aleykum ci yéen xéwal gu ma leen defal na ngeen ko fàttaleeku muy waa kër Moussa ñoom baña daw Firawna yàlla moo leen xotloon géej gi labal seeni noonu ñu dem ci arbul tii benn benn suuf nag ca Kanaan ñu daal di fa gëlëm-gëlëm goo xam ne man na quarante ans am gëlmande gu mat quarante ans yàlla keral leen ba bi du leen sonnal dafa wàccee lem ak yàppu pitax wala lu mel ni ki ganaar benn rab la ñeme leen lool ku ci soxla rek jàpp reen di lekk boo bëggee loo naan am nga ko lem nga am fi ngay naan loolu nekk na ci 40 ans ci ngëlmande suñ xëyee dañuy doxo doxo doxo doxo dox ba jant bi sox suñ xoolee ren ndeke fañ nekkoon foofu la nekk wa a foo matale na xam di suma kóolëre oo fi ma matal bi xandukum kóllërante gu ma kóllërante gi yéen iyaaya man yàlla kese farhabuuni na ngeen ma ragal bu mel ni xamoon ci waxtu heure jeex na lu ci ci yàlla lu ci dëng ci ñun la wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa nabina mawlana muhammadin wa alihi wa asaabihi wa sallama tasliman kasira xanaa ñu delloo da sant suñu patron Mouhamadou Mountakha Sakho États-Unis ñu ko sant bu baax da ko ñaanal yàlla yàlla xubbi ko yàlla sàmm ko yàlla xaar ko xaar njaboot aar njabootu mboolam jullit wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu